bi couvre ñu nekkee looloo waral teel a fatu gi ba tax na alaaji yi ngi tudd àjjana loolee lu ko waral mooy jonge ak xeet gu neex jonge mbaa xeet gu neex ki ko tudd di nga tudd cuuraay parfum maa sax nuisette te loolu loolee doon na luy sawarloo jigéen ñi lool góor ñi tamit des ñu ginnaaw jamonoy seddaay bi ñu ne Sen TV àndoon ak yéen doon doxantu si marché HLM. yaa ngi nii yaa ma gën a xam fii nga xamee fii nga amee Porokhane cuuraay ci Cheikh baar yaa ma gën a xam ay nisit rafet nisit yu doy waar bi moy keetu kër gi quoi wa bi mom da ngay sol rek yaa ma gën xam bu la neex nga sol slip bo lek ak mom bu la neexee do sol slip da ngay da ngay aj rek senegal jëm karam waa ji waa ji def lu neex quoi wa pour Saint Valentin mo amna bi amna bi rouge noir quoi wa nga def sa robe bu baax baax bu la moom ti bu la neex nga tëmbal bu la neex nga bàyyi mu sedd senegal jëm karam 30 combats sera defet deux semelles deux so bëgge iPhone 12 mom bi ngay jël ci waaw rouge danger la yaa ma gën xam nga sol ko rek bu la neex nga sol sa coquette yu baax di ko gauche droite quoi machallah allah même bi ni manto le don and ak slip bu la nga so slip bu la nee slip so so slip bu ko defé nga romb ko des fois sax nga seug so rondal gi man nakay fa dara fek pro dara ay affaire de ki la quoi yam gëna xam di wa provocation yam gëna xam mu lay xol nga kay xol yam gëna xam ngeena tan seen dem ak tay fi ngeen jaar ak fi ngeen agsi yépp bu ko nisa. yaram daw xol des fa tabarakallah bi robe de lay mais la bu la comprendre nga tàcc reer baax def sa diine bu am jom gis nga yaa ma gën a xam ginnaaw bi moo nekk nii su la neexee da ngay woo waaj rek mu tekkil la si ginaaw rek mu wadd ngeen def loo neex waaw am na solo trop fi nga ko amee daal Porokhane ci raay boo fa ñëwee daal tubaarkàlla li nga bëgg lépp mën nga ko fee amee quoi si Cheikh Bara moom Saint Valentin moom tubaarkàlla dama ciy pare bu yàgg gisoo sama xetu kër may na may naa ko sama madama ah tubaarkàlla madame Guèye waaw tubaarkàlla moom waxu dara tubaarkàlla waaw ni naa la fer yi bu la neexee sax mën nga ko tax nii xam nga bu doxante moom xanaa soo añee pare nii nga def ataay la wala ak deuxième ak troisième loolu da ci baax des fois nga ne ko ni papa xoolal ba guddi da nga mën a jàppee bu ko defee mu tëb mu tiit ko waaw bala balaa guddi rek day xam ne euh, guddi gi du yomb quoi waaw dina metti bi ngoog yaa a cuuraay ñëpp ko bëgg ndax daa bokk ci xeet gu neex bu ñëpp sopp rawatina si période seddaay bi ñu ne waaw cuuraay bu baax bi la bi may muraake gaynde Muraaxa Gaynde a nekk nii tubaarikàlla moom da ngay def doom bu tàng rek tubaarikàlla xam nga fay lampe bi rek muy saxaar di xëy neex soo dee sa nga bàyyi ba deux heures nga xam ne day nelaw ba sonn nga tab tabal ko mu yaakaar ne fajar dafa jot nga ne ko fajar jotagul mais dañoo war a defaat bu deuxième round quoi waaw da ciy baax da ciy baax lii mooy kecax waaw mu ngoog lii mooy iPhone 11 Pro waaw kecax la mais maa ko tuddee iPhone 11 Pro bu baax bi la quoi moom tamit moom yi bu la neexee ba soo yow huit heures neuf heures dix heures yooyu rek balaa muy balaa muy dem xëy 8 9 10 balaa muy dem xëy rek soo neex nga taal ko bu ko defee ngeen mën a waxtaan xam nga def waaw bu ko defee ngeen waxtaan def seen yéen yu baax balaa muy dem nga xam ne da ngay kontaan quoi mu lay battre ay bee yu wóor moom tamit bu demee xëy sax day am day am envie xam nga xëy bu baax mën a wax ak client yi parce que day xam ne cuuraay bi nga ko euh, ci baara rek nga koy mën a amee daal macha allah. naka ji dala mais man maa ko tuddee soosu kaani waaw man maa suma tuddi soosu kaani waaw bii moom boo ko taalee mi waa ji la mu taayal taayal après day sawar ko waaw waaw danga koy taal rek waaw mu engagé la di xiiru tubaarka nga ko lu mu demee ni nga ne ko ah, ah yow li nga fi taal moo ma moo ma kii daal moo ma xëy moo tax may def lu ma neex tubaarka la guddi gi taal du loo bëgg rek waaw diviseurs yi diviseurs yi bëggee rek am na ndaw am na yu mag comprendre nga am na mag am na yu ndaw am na yoo xam ne sax day tuuti nga xam ne mën nga ko dugal sa saak wala sa poche affaire yooyu noonu pour sooy affaire yooyu eh, nga mën di la neex am na yoo xam ne moom da nga def sa coiffeuse rek tubaarka la muy xëy neex quoi comme genre xeetu lamp yeeg yooyu noonu yep yëpp inshallah ñëwee ba xam ne rek soo wootee ci baara rek incha ay film yu rafet ay film yo xamne ma am pour boo yee ya, ga waji xam nga amna ya. sa monsieur boko amé waro ko di yé ya, di fëgg buntu bi di drancement la don wala tap tàppal da nga des parfois bu neex rek comprendre nga laa ko si Modou Ndiaye ak yoyu nak papa comment tu vas ça va très bien monsieur tam na la j'aime bien wa barka la fi ngoy lef di amé dal ana tamit ay ay limay lé lee demee nuyu quoi mo gisoo gitu. jakar lolo tud jàkkaarloo moom bi avant grand combat boo sangoo pare ba soo sa nuyu sa pare ba nga xam ne lewaatoo rek moo des da nga koy def nii rek xam nga ak si day am envie combat quoi parce que am na jigéen xam ne xam nga duñu am xeet bu kii daal xam nga il faut nga am xeet bu neex pour maanaam soo ko soo ko cootee rek mu am mën a mu am envie la ciy baax quoi te jigéen dafa bëri ay pax il faut il faut pax yëpp di baax waaw bëggee sa kanam di set tubaarikàlla sëñ bi bu bu sëggee du bëgg a da ci baax da nga ñëw fii ci Porokhane ci raay salanti bu baax la yee ëpp na bi moom boo ko kiyee moom day dubal nooyal lépp comprend nga waaj bu sëggee du bëgg a ba pare xam nga loo ko wax rek danaa la amul benn problème amul benn problème kay la wax ba ko rek affaire bi ba ko rek ne xaa bi dañ waaw fi nga koy amee Porokhane ci raay Cheikh Bara quoi coussin yaa ngi nii quoi coussin yi rafet la moom day tàq day tàq quoi comprend nga guddi gi ay trois heures du matin rek moom lay tàq trois heures du lay tàkk te heure boobu noonu yow yow doo ko taal day jékki-jékki rek trois jot rek mu tàkk comprendre nga bu defee nga mën a waxtaan ak moom tamit seen dem ak tey seen jaar-jaar ndax ku ne am na jaar-jaar da ciy baax quoi pour Saint Valentin bi quoi ngeen gën a dundalaat seen bëggeel waaw mais man nag moom pour man Saint Valentin da nga war a def chaque jour quoi su fekkee bëgg nga sa jëkkër waaw chaque jour Saint Valentin yaa ma gën a xam ndax day mais soo tubee tëb rek tey Saint Valentin ñëw nga bëgg a di kii xam nga day yaakaar ne yow bis bi rek bis bi rek nga am quoi man loolu ànduma si ànduma si dara dara dara waaw. mbokku internetu Sam TV lii nañ leen indiloon si marché HLM ba beneen yoon si beneen marché beneen sujet Sam TV génne de la l'actualité